ok madame le maire tey ngeen ñëwoon ci journée bi xam ne waa CDK ñu ngi koy def mu cinquième édition bi ngeen ñëwoon indi ndimbal bi xam ne wala appui bi xam ne mairie bu Koungheul mu koy def lan nga leen di wax ci lii nii ak euh, ni ngi leen fekkee ci liggéey bu am solo bi xam ne ñu ngi koy def fii ci Koungheul. merci madame asalaamaaleykum mbokk Koungheul département Koungheul commune Koungheul ñu ngi nuyu ñëpp ci turu monsieur le maire Alioune Badara di ñëw tey si programme bi nga xam ne nii waa SEDECA ñoo ko initié di ko dalee si turu président bi coordonnateur bi ba ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi si biir groupe bi. ñu ngi si biir association bi di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp. tey nag monsieur le maire yónni woon ñu fi ma ànd ak son directeur de cabinet ak euh, honorable conseiller ki ne nekkoon. ñu ñëw fekk si leen bi seen liggéey bu am solo bi. ok ni ngeen ñëwee lan ngeen ñëw pour indi leen ko ci journée bi. li ñu ñëwee ci journée bi mooy appui maire. bi nga xam ne daf ko daan def chaque année tey nag ñu ñëw ak euh, li nga xamante ni asakaay yéeneem la mhm. mu di ko def chaque année di baaxantalam mhm. tey mu indi mu jox ñu tey une enveloppe de cinq cent mille francs mu ne nañ ñëw remettre ko euh, aux gens des SEDEC du SEDECA mhm. donc tey loolu mooy suñu teewaay fii boole koog nag di ànd ak ñoom si liggéey bi di wax ni que maire tamit tey bu sañoon dina teew fii ànd ak ñoom ci liggéey bi comme na mu ko daan defee. Mhm. tey loolu mooy Sotar lii nii suñu mbir la. activité koo xam ne nii tey mairie bi tey lañu waroon a déparé sax. Mhm. man damay gis loolu damay wax loolu tey bu ñu sañoon tey mairie sax lañuy ñuy pour won nit ñi ni ko lii mbiru mairie la. mbiru monsieur le maire la waaye mbiru tamit askanu Koungheul yëpp la mhm. di ci invité nag tout la jeunesse de Koungheul bi ci invité góor jigéen mhm. bépp nit boo xam ne nii sax ressortissant Koungheul nga mhm. tey activité bi waroon nga si teew donc di leen soññ ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ngànk Sénégal ñuy gën a yaatal ñoom tamit information bi di leen won ni ko daal municipalité Koungheul bi ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi seen kanam te lépp lu ñuy def incha allah fas yéene nañ si dugal suñu loxo yokkul suñu ay activité yokkul si suñu taxawaay. ok soobee yàlla. jërëjëf monsieur. waaw kay merci beaucoup merci. président comme ko gisee rek seen collaboration bu France bi chaque année muy am yéen ak waa mairie bu Koungheul te ñëwaat nañ appuyé leen wala fekk si leen ci liggéey bi sax parce que comme ni ko madame le waxee rek ñoom ngeen di liggéeyal ñu ñëwaat fekk si leen ci lii pour jàpp ci journée bi ban jàngat ngay def ci li ñu def. waaw euh, li mooy njëkk wax mooy je dirais que l'histoire se répète parce que la mairie son appui a été toujours senti lors de toutes nos activités donc euh, pour commencer on dire sans cesse merci beaucoup à la municipalité de Koungheul merci à monsieur le maire représentative traduit monsieur Mbodj monsieur Mbeng et vraiment à mon nom la CDK remercie infiniment le mairie la mairie du moins en premier monsieur maire Alioune Badara Ly pour son appui qui ne cesse et qu'il a toujours fait à sant di leen gërëm ah di ñaan rek suñu collaboration bi continue pour le bien-être du Koungheul parce que Koungheul c'est notre Koungheul et c'est un bien commun ah, di jàppale vraiment ñu leen ci sant encore di leen ci gërëm ah, di ñaan yàlla ngeen yàgg koo mën ah, di ñaan yàlla aussi seen yéene ci Koungheul ngeen yàggale ko di jaay Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ok CDK ak mairie bi wax nga ko appui bi am na solo trop mais tamit dañu dégg li technicien yi wax léegi rek muy suivi bi lan nga leen di dénk parce que ñoom tamit ñu ngi def liggéey solo ci côté assainissement ak environnement pour suivi bi mën a nekk comme la plupart des gens yi nekk ci CDK fii ci Louga. effectivement ça c'est parce que le suivi c'est c'est c'est c'est la quintessence même des, des activités de reboisement. Mm parce que ñun dès nos affaires. li ñu njëkk a def mooy on a créé vraiment ay accessoires yoo xam ne dañu mën a dañuy mën a di ci di di ci taxaw pour di mën di arroser mbedd Koungheul yi. mais à la fin dem na ba financièrement on était un peu étouffé. demoon nañ waaw bon on avait une charrette avec un réservoir d'eau un âne on payait le gaz qui s'en chargeait vraiment mais à la longue nag xam nga su amul. une, euh, une base financière bu solide. day xaw a métti. <laughs> peut-être avec la mairie du ñàkk ay suggestions yu ñu jox parce que ren on n'a pas fait des plantations dans les artères. Mm-hmm. Euh, peut-être daaw def nañ ko. en tout cas dès que je suis pas encore vu li ñu defoon fan la toll xaw ma mm-hmm. mais sans suivi euh, le reboisement sera fin <laughs> Et le suivi ne peut se faire que par la population congoloise. Certes, la mairie a les prérogatives, mais nit suñu jëmbatee garab sa buntu kër je pense que tu dois avoir la peine euh, de s'en occuper logiquement. Et en même temps, comme on l'a dit tous, on appelle la jeunesse congoloise pour venir en appoint. Parce que ça, nous sommes, nous, à la fin de notre processus. on a dépassé les 60 ans. Et on ne continuer à travailler avec. Travailler pour des jeunes, ça, on ne le fera pas parce que si nous dormons ça, on va On est exténué, on commence à sonner. Mm-hmm. ok mujj bi lan la. kàddu gu mujj daal mooy yal yàgg ci Koungheul. Mm-hmm. kàddu gu mujj mooy nañu yàgg di ànd ak wàllu ñuy xëy na liggéey. waaw mm-hmm. ah, kàddu mujj bi mooy CDK sant na mairie bi. sant na ku dugal ci activité yi surtout yow Matar waaw vraiment maa yow chaque jour ñu ngi waxtaan. Mhm. sans les activités. ci fàtte naa tam wax. soxna si wax na ko. Sénégal c'est international. parce que nous on a propre page Facebook. partout dans le monde. on communique. Il y a des gens qui, qui, qui, qui nous envoient beaucoup de choses, Mais peut-être lan moo ñu manqué rek mooy euh, comment dirais-je des représentants yoo xam ne. Mhm. sont totalement imprégnés. yaa Koungheul yaa des fils de Koungheul partout dans la diaspora. Mhm. mais peut-être manque bi mooy manquement bi mooy impré imprégnation buñ ñu ci waroon def peut nañ deful quoi. <laughs> mais on beaucoup de possibilités. mais yàlla dina ko sottali. incha allah jërëjëf vraiment merci beaucoup vraiment.